boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaaxle jeex na digital store indi tina gamme smartphone ak tablette Android yu bees tax dëgër këcc di ay téléphones yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañeen leen looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi m x T5 ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq. mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 digital store améliorez votre quotidien xoolal boroom kër gi buntam dafa naqare ubbi soxna si moom caabeem dafa dëkk ci cang ci bunt bi ba faf dafa mujj damm ci bunt bi surtout ba ñuy dund lu mel nii demal Touba quincaillerie générale loo soxla am na ko ay poignée de porte yu dëgër te rafet lool waaw rafet lool sax ci design boo bëgg si qualité laiton wala inox am na fa ay serrure électronique am ouverture carte code wala empreinte digitale ay pommelle charnière ak bépp accessoire finition menuiserie ay canaux ak serrure de sécurité ci marque Touba général générale caabi du dugg di cang ci bunt mi waay ay vachette ak brica qualité bu mucc ay te nangoo yàgg ay contreplaqué yu dëgër seet si ñu di nga am ca Touba quincaillerie générale li nga bëgg ci qualité ba noppi méngoog jamono ci njëg yu xéewale ñun waa Touba quincaillerie générale fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba quincaillerie général Kër Damel extension rond point 26 ca Parcelles Assainies Touba quincaillerie générale 65 rue Ngalano Diouf Touba quincaillerie générale 84 rue Ngalano Diouf Touba quincaillerie générale Mbour route nationale après croisement Ousmane Sali Touba quincaillerie nekk Touba 28 ci wetu jumaa ji Wakaam fii ci wetu brioche dorée bi TQG Touba quincaillerie générale. yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey nu yàlla boole di ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk muy weer wu bari ay xew-xew ci diine ji fii nu nekk ci Sénégal rawatu ci dëkk bi nu nekk rawatu ci ñi waaj nar a ñëw ñépp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm fekk fi ñu fi nekk ñépp ci jàmm delloo leen ci jàmm bàyyi ñu fi nekk ci jàmm di indi nag xutba boo xam ne euh, Alaaji lu Mbàkke mi nga xam ne moo woote woon màggal gi fi Tuubaa moo ko defoon indi ay lay yu leer ci lu tax mu di ko woote ak bu ñu ko wuysee ana nuñ koy nuñ koy doxale dafa wax ne lu nit gàtt-gàtt xam-xam ca la weesu woon ca mboorum gaa yu baax ya dana xam ne jàpp benn bis ci bis yi di ca fàttaliku lam cay fàttaliku jiitu na gën ak àdduna ñu bari ba suñ jamono sos nañ ci ay bis yoo xam ne am réew a koy moom tudde ko fête national kenn du xëy kenn du gont ñu ne réew mi moo ko moom te réew mi mënoo koo laal du jëmm ji ñuy laal ñépp ànd ca réew yëpp ko def daanaka réew mu ne am na bis bu muy fàttaliku dal ne bis boo fi gis nag bu dee ci diine la moom am na sabab jël na misaal ci bisub tabaski ne bisub tabaski la ca gën a ñor jullit yi mooy tawxiid ju dëgër ju seydna ibrahima alayhi salaam dundoon digganteem ak sunu borom ndax woo na ko wan na ko ci gént ne ko sa doom ji dama bëgg nga rendi ko mu jaral ko ko jaral ko doomam jaral ko ñam ko séqal ñëpp ñu nangu doom ji nangu yàlla wootee ko am xar muy bisum tabaski bisum tabaski nee na it gannaaw ba loola weesoo lu yàgg ñi dàkk bésit ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon adduna di ca waxtaane dundug yonent bi di ca jàngalante am njàngaleem nee na loolu ku dem ca réew yi penko yi da fekk ñu fonk ko lool waaye ku ñëw ci réewi sow wi da fekk ñu fonk ko lool loolu ñëpp ko bokk waaye ci biir diina ji it am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu jiitu ci diina ji jàpp nañ seen bis yi kilifa ak diine bu agsee ñu di ca fàttalante am njàngaleem mu teg ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ca paso dajale sa njaboot ga nee na nag ba amee fii fi réew mi fii Cheikh Ahmad Bamba feeñe dunde fi li ëpp ci dundam génne fi àdduna ñu dencaat ko ci suuf si moom moomu ci dundam la woote wax ne daa bëgg bis bii di fukk ak juróom-ñett saa bu buñ ca àggatee fu fekk waay mu santale ma ca yàlla ndax ci bis bi la ko yàlla tàmbalee jox yoo xam ne du dàkk noonu la ko waxee daan ne kon warugar la ci képp koo xam ne yaa ngi koy wuyoo nga wéyal ndigal loolu daan ne ndigal loolu ndigal nag wéyee ko ca la njariñ nekk ndax sëriñ bi moo bind ne laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli shan daan ne moom nag moom Alaaji Fallu mi ngi leen di digal ci loo xam ne ku ko ko laaj foo ko ko mën a laajee jaral na ko mu taxaw leeralal la ko lam ca digle moo ñu ñëw Tuubaa gii di ko fi defe si ndax lan di ca dàkk taxariyan di ca dàkk di ca tàndale ngërëmam ndax fu ko waay defee yaa ngi ci ngërëmam yaa ngi ci wut ngërëmam waaye fii mu nekk fenn mënu ko ko gënal ndax daa yàgg a bëgg daa daa bëggoon dëkk bi ci nekkam ba ku bëgg a dégg mbégteem da ngay tudd dëkk bi daan ndax mu mottilal ko lam tàmbale woon te ak ay atam mayu ko mu fekke ko bu mën ko àggale taxariyan li maradihi fi tatmimi binaa'i ma assasa daal ne nag buñ ko defee nii mu koy defee yaakaar nañ ne danañ ci mën a amee njariñul àdduna ak àllaaxira te yooyee mu lim ne noonu lañuy màggale ma fàttali ne Alaaji Fallu moomu kenn gënu koo xam ni ñuy màggale ab taawam soxna benn Fallu 1908 la judd ba sëriñ bi demee Ceyeen Jolof ba ca déwén sa la gane àdduna taawam boobu moom ak màggal gi fuuf kon kenn mënu ko gën a xam nu ñuy màggale ab taawam soxna benn Fallu moom ak fuuf màggal gi nee na moo ko fi woote di fi dàkk ngërëmul sëriñ bi ci ab sart bu fi kenn def njëkkare mooy munkar bu fi kenn fo loo xam ne ay wax lay doon wax di fo ci wax bu fi kenn fo te mu jëm ci jëf jëf joo xam am pola wax joo ne am pola mooy lahwun wa laib loola kat am naw lay ci alxuraan wa ma hadihi alxayaatu dunya illa lahwun wa laib wa inna daar al la hiya alxayawaanu law kaanu yaalamuun adduna fu nit ñi daje nis tuuti lahwu ak laib tàmbale faa am waaye na xam ne lii tàmbalee fii jëm ëllëg moo leen di amal njariñ ëllëg ndax foofa ku fa dugg dutoo génn kon nee na nañ ciy jàng alxuraan nañuy màggale nañ ko déglu dama ne kenn gënu koo xam nañuy màggale ndax ab taawam 1908 la juddu sëñ Tuubaa ngay Jolof booba daa jógee gànnaar ba ci déwén si ab taawam juddu kon taawam boobu moom ak màggal gi fuuf walla bokk bi ko sëriñ bi di bëgg biral bokk bi ko sëriñ bi biral moom taawam boobu moom ak màggal gi fekk na mu am ay at yu bari nee na bal azimuhu niñ koy màggale mooy di jàng alxuraan sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla sàmm fàttali na ko ren nee ku ne na fexe balañ caa àgg mu jàng kaamil sëriñ bi ay fan fani fan fani fan ci am kaang yomb na mu jàng cab kaamil tuddoon nañ ko bi ñuy sos bi bi ñuy woote màggal gi Tuubaa fàttaliwaat na ko kon lay amut ci ne màggal jàng alxuraan moo ci gën a ñor xom ndax moom lañ dëkk tudd fii tax démul moo tax xaddim lañ fi jëfandikoo dañoo jiital li war a jiitu wàcc ay kaamil yu du jeex nag sëñ bu mag bi am na lu mu ci wax nee na jàng benn kaamil settantal ko ci ay fan xam ne saa boo ko jàng yow la yàlla di waxal moo gën di wëlbati di teg di wëlbati def di wax lim bu du jeex bu ñuy jàng ci kaamil wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuuxu xatmatan minhu xalat nee na nañ ci tudd yàlla loolu it am na alquran aw ab aayaam yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asila kon ku màggal si amul jot lu dul bu nekkee ci alquran ji mang ngi ca dikrullah bukratan wa asila suba ngoon ak yamel ni ñoom ak yamel ni ñoom waaye togg aw ñam jox ko ñi ko gën a soxla itaamu taamilil yataama wal masakin loolu ana nuñ ko mën a dabaatale nii mooy ku ko man te fas yéenee togg mu dem ca pegg dëkk ba màggale ji fa ndax lan di toggal ñi nga xam ne ñëw amuñu luñ togg di jox ñi nga xam ne kenn joxu leen di jox ñi nga xam ne kenn bàyyilu leen xel wa itaami taami lil yataama wal masakin waaye kon fii di togg di jox ay VIP boolewu ko ci di def nangam fonk ko lool di ko siiwal adduna bépp di ko gis tudd ko fi lil yataama wal masakin la wax te noonee lañ ko daan jëfe boobee bokk yi màggali Tuubaa yu jëkk ya ba bu yàggutoo boroom at yu néew yi di ko fàttaliku ña daan màggal si ñooy ëndaale li ñuy màggale su ñuy dem bàyyee ko waa dëkk bi léegi nag jamono soppi ko ne ba waa dëkk bi am nañu ko ci man waaye nañ dem ca pegg dëkk ba ña nga xam ne mu ñëw ñëw te kenn du leen limaale ñoo di fa màggala ji di togg di leen jox su fekkee bëgg nañoo màggal wasilati rahim ko ak bokk calaa loolu yomb naa xam ziaratu saalihin seet nit ñu baax ñi nga dem di leen nemmiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa laaj na laaj nañ ko jataay yi gën jataay yi mu ne rajulun saalih nit ku yiw nee na boo ko dee xool nii te àggagoo ci moom sax mën ngaa jariñu ndax dana la jàngal nu ñuy toogee dana la jàngal lu ab jullit di solo su waxee ba nga dégg ko am nga yóbbal boo xam ne boo ko bàyyiwul danga nga jariñu rawati nag mu xam la xàmmee la su boobaa moom sañ ko ko laaj mu tontu la bu fekkee jàngalekat mi ngi am ba tey la suñu tubaab daal liggéey daal ne wama jaraa ma jaraaha lim bu bare bi ma tudd ko fi waaye lépp lu demee ak noonu lu demee noonu jàng alxuraan zikrullah qiraatul xasaid mooy zikrullah bi anwaa ci la ko boole ak di togg di jox ñi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw ak jokk ak bokk ak seeti gaay yu baax yi nga xam ne seen jataay da nga fa dolli koo ci sa diine ci sa pas-pas wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad bu dee dikru la tudd ko yaa ayyuha allazina amanu kuru la dikran kathiran wa sabbixu bukran wa asi mooy alxuraan daa eh, gawuñu nit ñi di ko jàng di ko mokkal waaye nag ku ne na cay jàng lam ca man faqra'u ma tayassara min alxuraan waxuñu jàng alxuraan la ci nit di amee waaye di déglu ku jàng alxuraan daal man ne yàlla da ji juddoo wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamuun waaye togg jox ñi seen loxo jot seen gannaaw bu ñu demee ci alquran araayta alladi yukadibu biddiin xanaa gisoo koo xam ne kii lu diina teg mu teg gi teg fële ñu ne ko ah loolu ko yàlla bu ma taseeg moom mu ne ah kay saa su nga taseeg moom fa dalika alladi yaduu lyatiima wut faalewut jirim faalewut jitim waaye doo gis mukk muy togg di jox miskin yi ku nar a togg jëmale ci miskin yi sax mu ne la xanaa xamuñ VIP yi fan lañ nekk nañ leen jëkkee bu dee sañ jot miskin yi yàlla ñu ci yàlla musal jokk bokk mi ngi ci alquran afama yalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa ama innama yatadakkaru ulul albaab alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almithaqa walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu al xisaab kon bu ma ko tënkee nee naa kenn gënu koo xam ni ñuy màggale ndax ab taaw moom moom màggal gi fuuf ci bi ko sëriñ bi birelee ne nañu ko màggal moom mi ko indi tuubaa nag layoon naag ñun ba noppi ndax daa bind bàyyi fi lii may wax nii moo ko bind te ku ko soxla mën na koo am nañ fi daje dàkk fi ngërëmul sëriñ bi jéem koo mottalil ay naalam cëb sart feek munkar aj nekku ca ak lëxwu ak laayb wax ay caaxaan jëf ay caaxaan waaye niñ koy màggale mooy jàng alquran zikrullah ak xeetam yépp di togg di jox yataama ak masakin yi jokku bokk ak siyaara ji gaa yu baax yi yi nga xam ne soo fa demee da nga fa dolli ko pas-pas danga fa dolli ko ci sa diine kon bokk ñi nga xam ne dañ leen di wër di leen seeti li ma leen ci gaa yu baax yi nañ ubbi seeni bunt may nit ñi lu waay bëgg laaj ci pas-pasam laaj ko lu waay bëgg laaj ci diinam laaj ko mooy liggéey bi waaye nee na laata muy yëkkati kàddoom li ko digle diisoo na ci ak ñi nga xam ne am na luñ mënta mënalu ko boppam murit yi mi woo luñ ko seen bopp muy ad dawla nee na waxut ñu ne ko ànd nañ ci waaye lum ci lum laaj te moom mënu ko woon defal nañ ko ko ci booba ndox demewut nii mu demee bokk yi booba ak léegi mat na juróom-ñaar fukki ak juróom booba ku ne xam ne ndox amagut Tuuba mu amee Tuuba ko jàmbat jàmbat naan amut amut booba daa amutoon far bañ di ko jàmbat waaye ñooñu ñoo daan indi ndox mi nit ñi di naan ay làmp yoo xam ne fenn foo bëgg a dem man faa dem it ñoo ko daa indi am na kër gu ne ci wetu gaar bu ndaw fa lañ leen daan dalal kër gaa nga fa ba léegi si booba dara féetewu ko penku te digg mag jumaa ji moo ne mutul juróomi téeméeri mètre kon boobu dëkk bi xumbagul ñu daan defar làmp yi ñu di leen tudde kër compagnie kër googu lañ daan dal waaye daanañ indi ndimbal loo xam ne ab dund la nu ñu ko daan joxe dañu daan seet kër yi nga xam ne moo ëpp ay dal te bu ñu fa dalee danañ togg jox gan ña fa dal rawat te ay yataama masaki ni jot ca dana yomb ñu di leen ko jox moo lañ ko daan defe boole ko nag ñëw taxaw ne sëmm kuy bëgg a luubal boo leen gisee sam xel dellu ci ne ñii ñoo daan làggal suñ maam ya bu démb ak bërki démb loolu moom munuñ ko am nee na loolu nag bu ñu defee ne defal gëm ñu ko defaloon daf ñoo jomb bañ di leen sant ak gërëm déedéet fu aw xew am daf leen faa war ndax nit ñi lañ yore nee nañ te fu aw nit daje dañoo war a wétti la ji nit ña te seeni yitte noonu la ko nee na loolu la ñuy defal nag bu leen defee ne dañ ko dañ daf ñoo jomb war dong teewut nag bi ñu leen waree bañ def ko des na leen ca sant ndax yëf yi nit ñi lañ yore kon fu nit ñi daje dañ leen a war a wéttali ci isaaf boo ko déggee mooy koo xam ne mën na dara lam nga dimbale ko ca kenn du isaaf am néew am néew mënatul dara waaye isaaf soo ko gisee soo ko gisee ñu bind ko ci oto wala nga gis ñu koy def mooy koo xam ne mën na tuuti la mënut nag ñeneen roqandi ko ca nee na bu leen yaakaar ne nag loolu daf ñoo jomboon bañ tax ñuy sant ak gërëm déedéet jombunu woon nit ñi lañ yore nee nañ te nit ñi am na luñ man ak luñ mënut kon boog yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën caa àgg ak jàmm lii nag dana am ñeneen ñu ne diw nee na woon loolu kenn sañu ko bañ yàlla day taxaw wax ñu ne waaye in hada illa asatirul awalin in hada illa soxrun mubin ñaata yoon lañu ko wax yonent bi wala ñaata yoon lañu ko wax ay yonent waaye yàlla dana woon yonent bi wa qulil xaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur alladina amanu wa amilu salihaati inna la nudiu ajra man axsana amala fal yakfur inna aatadna lidalimina naaran axaata bihim suraadiquha suraadiquha wa in yastaxidu yuxaadu bi ma in kal mohli yashfi lwujuh bisa sharaab wasaat murtafaqa yàlla nañu yàlla musal ci lu ñu wax rek ñu ne eh kum neex mën naa tànn màggal ku nekk waaye nag kii woote woon màggal gi fi Tuubaa layoo naag ñi mu ko séqaloon nii na nii la ñuy màggale ku def leneen na wëri keneen waaye du moom mi ko woote woon Tuubaa yaxfirullahu lana wa wa li saa'iri l-muslimina amin xoolal boroom kër gi buntam dafa naqare ubbi soxna si moom caabeem dafa dëkk ci cang ci bunt bi ba faf dafa mujj damm ci bunt bi soo bañuy dund lu mel nii demal Touba Quincaillerie général loo soxla am na ko ay poignée de porte yu dëgër te rafet lool waaw waaw rafet lool sax ci design boo bëgg si qualité laiton wala inox am na fa ay serrure électronique am ouverture carte code wala empreinte digitale ay pommelle charnière ak bépp accessoire finition menuiserie kanu ak serrure de sécurité ci marque Touba Quincaillerie Générale caabi du dugg di cang ci buntu bi waay ay vachette ak brica ci qualité bu mucc ay te nangoo yàgg ay contreplaqué yu dëgër seet si ñu di am ca Touba Quincaillerie général li nga bëgg ci qualité ba noppi méngoog jamono ci njëg yu xéewale ñun waa Touba Quincaillerie général fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie Générale Kër Damel extension rond point 26 ca Parcelles Assainies Touba Quincaillerie Générale 65 rue Ngalonou Diouf Touba Quincaillerie Générale 84 rue Ngalonou Diouf Touba Quincaillerie Générale Mbour route nationale après croisement Sali Touba Quincaillerie Générale nekk Touba 28 ci wetu jumaa ji Wakaam fii ci wetu brioche dorée bi TQG Touba Quincaillerie Générale mbokk yi ak digital store leen jaaxle jeex na digital dëgër këcc di ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garanti looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 x T5 ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bii nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la Corniche ci numéro bi 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. boo bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da di bés fu bind abonné bu leen fàttee bés def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyeekoo.